waaw Sénégal gars yi ñu ngi romb waa ji journaliste yi ñëpp a ngi koy romb duñ ko tàllal micro. mais man Iba Kane Iba Kane Iba sax la may woowee parce que moom ñëw dëkk ginnaaraay xam na nu ma. dëgg la kii mooy Sadio Sadio bu Pikine Sadio bu Ama Sadio bu tund goxu yëpp. mais Sadio nuyu naa la. waaw ñoo ngi lay fay. mais Sadio à travers internet bi ñoo ngi ñëpp di siyaar ñëpp. di leen dookale ci weeru gàmm gu sell bi ah. di ñaanal ñëpp jàmm hmm. di ñaanal Pikine jàmm di ñaan Parcelles jàmm di ñaanal askanu lépp jàmm yàlla nañ dolli jàmm mais Sadio boo gisee ma tàllal la micro Sadio yoog làmb dafa yàgg waaw mi ngi bëgg yàgg kay macha allah ah. loolu kañ la ñun moom boo xoolee chaque jour dañ koy natt seen anniversaire ah. sunu làmb quoi 19 décembre 2005 ba léegi daanaka ñoo ngi seetaan làmb di ko suivre. Mhm. tamit nekk lecteur sunu lamb bu yàgg. duñ xëy te liir woo. dëgg la waaw ci la ñu amee yenn information lamb di ci mhm. dox di ci dem. Mhm. ba yàlla def li muy def tey. ba virus làmb dugg la. wallaay azim mënu may yeew te liiru ma ko ku dee ak bàmmeelam. waaw di fàttali gars yi rek chaque nañ koy koj chaque république lamb waaw vingt cinq questions yi. ndeysaan waaw tey rek maa ngi koy liir démb rek maa ngi koy liiraat. macha allah waaw noonu la demee. mais mais ku wax Pikine Sadio yow mbëru Pikine lan la. waaw dañoo nekk ay waay rek. boo xoolee nekk surtout xale yi nag espoir yi. waaw surtout espoir espoir yi moom. daanaka ku ci bëgg a sax danaan xaar ñu dem si Saara def. benn promo pour mu tël ma combat. ñu jéem a def ni nga bëree daal. waaw da yàlla suturaal nañ ci kuñ ci jàppalante rek. boo xoolee buñ la toppee trois a quatre combats. grand frère récupéré si ñun sant yàlla la quoi. Saara ñu lay gis si deux cent pour cent Pikine gaa yaa ngi doxal. waaw parce que day am foo toll foo xamante ba fa tolloo. Mhm. grand frère yi ñooy doxal quoi. Mhm. waaw di ci nuyu au passage sunu père Abdou Bakhoum père Bourkhane. Mhm. xam nga. per yëpp mbay Diallo Baba Wade Zil Balde. su ma limee rek du ma matal pa per pa la ñëpp maa ngi béggee ñëpp mhm. waaw instant bi nag ñoom ñooy parce que ñoo ngi toog seen ruku di wàcc suñu trois grand co suñu quatre grand combat yi ak yeneen boy tamit mhm. parce que léegi Pikine moom combat yi boo xoolee la grand frère di def ah. moom la petit frère di def mais comme grand yi ñoo toog ci kaw ku mel ni Eumeu mhm. di wàcc Tapha Tine yàlla na may ndam Ama Baldé di wàcc Modou Lo yàlla na may ndam tamit xam nga ñoom soq ñoom ñëpp. Mm-hmm. waaw gaa yëpp ngi pare ñoom Pokola ñoom Jacob Balde. Mm-hmm. ñoom Prince. waaw gaa yaa ngi pare ñoom ñëpp. Pikine daal day yëngu waaw ñun ñëpp Pikine day yëngu. parce que 2024 bi tool bi suñu toolu maam la quoi pour wax dëgg. dëgg la waaw te Falaay Balde ndeysaan. Uh-huh. instant yi mun naa la wax espoir Pikine yëpp xale yi. Mm-hmm. seen maam la. dëgg la waaw léegi nag ñun ñëpp ñoo ngi waaj. banko doon benn bloc. pour waaj suñu làmb yu nekk suñu kanam. macha allah. le 5 amuleen ci tànge. sama côté moom wax dëgg fa yàlla aw ma ci tiitànge aw ma ci sa xel ñaar. mais gars yi jox man kay yàlla na yàlla na Ama ñëw rek man loolu laay ñaan rek man yàlla nañ ñëw rek yàlla na Modou Lô ñëw Ama ñëw ci jàmm ñu bëri ko ci jàmm. Hmm. aw ma lu may tiit ci Ama barki rasulaay. nan nga ko mujjee gis. waa Ama jour bu muy dem Gambie laa ko gis. waa waaw maa ngi ko gis ak yàqam teeg. ku ah. mel moo ngi mel ni kuñ xaftalu ko waa man. Ah. waaw gaynde rek laay gis ci moom. parce que moo ma ko tàmmal quoi. ku ma daanal Malick Niang ma Tafatine. waaw waaw defe naa fee quoi. Ah, Modou mm-hmm, fee mais coow li bari de moom du dafa nar a dafa blessé. non dayo bi boo toll noonu ama coow moom far dëgg fa yàlla ama Modou Lo foog mu am coow mais dayo médical moom man luy xew tey laa xam mais luy xew suuf wax dëgg fa yàlla xaw ma ko mais man su ma doon Ama Baldé wallahi azim su ma yoroon beeg sax damay dem bëre ji te xam naa ni gëm-gëm bu nekk ci moom mhm. waaw mën nañu indil victoire Pikine quoi ah. tamit combat bi yombaluñ ko nag ci bakkan waaw parce que ñun waa Pikine mhm. dama bëgg ñu may dégloo xel ko mhm. Ama Baldé du bëreeg como Ama Baldé bu naree bëreeg ay ay laal daanoo wala ay midd comme nañ bàyyi nañ bàyyi turu Ama di ko tudd ci làmb quoi. Mhm. nañ xool carrière Ama Balde Ousou Ndiaye ba ci Modou amul kenn kenn kenn ku Ama di négliger Ama kum la am. Mhm. kum mënti am. da lay jël ci respect fulla ak fayda bëreeg yow. waaw entraînement lu mu waree da koy def. Mhm. préparé la comme ni muy préparé yeneen yi muy bëreeg roi des arènes roi des boo xamante ne nii Pikine la ko jëlee. yóbbu parcelle Ama Balde waru ko jëlee parcelle. indi ko Pikine loolu Iba ku la wax dañ koy yombal waxu la dëgg Ama mi ngi ci nekk li mu war a nekk moom ñoom Bisil Balde ak mafia bi sunu grand Malaw Seras bu mag ak bu ndaw Tafanaar Père Baaxum ñëpp su ma limee du ma matal mhm. saa fandu ñoom ñëpp a ci mhm. wax dëgg fa yàlla ñun poussé ko rek lañ mën mhm. bu ñëwee ba ci buntu stade bi yéeg ci kaw Ama yëngal ci suuf noonu lañ demee quoi te incha allah xam naa ni moom ci wàccaay bu baax a baax instant bi seen adversaire non pare moom wax dëgg fa yàlla tant wuñ hmm. ba daw dongali bëre benn benn une minute doo xam ko gën pare mais wax dëgg fa yàlla li may gis ci moom ci yeneen combat yi laa gis ci moom lii quoi parce que man daanaka li may gëj kër ga bëriwul noonu mais Ama heure boo ñëw heure entraînement la ñuy ëpp lu ñuy daje quoi parce que man su ma ñëwee rek dem na entraînement hmm. te mi ngi entraîné ak Iba ma fenul Ama mi ngi entraîné hmm. lu Modou Lo mënu ci dara. waaye ba làmb dafa am benn cercle boo xamante ne wala benn triangle boo xamante ne nii dafa am ci làmb. Mhm. nit day daan kii kooku noonu mu daan keneen ki daan ko. dëgg la comme boo xoolee cercle ñoom booy ko cercle ñoom Ama Boy Niang Sa Thiès la demee. Mhm. di yëgaat ci kaw tamit cercle ñoom euh, Balla Gaye Eumeu Sène Modou Lo hmm. gis kii daan ki ñaari yoon kee daan kii ñaari yoon kee daan kii ñetti yoon noonu la demee daal waaw nañ xoolaat làmb ji nit mën na daan kii nit mën na bañ a mën kii ci dara kee ñëw am ci dara parce que sens tamit day am ci làmb quoi bu lépp jeexee ci làmb sens tamit ci la boo parce que Modou Lo yàgg nga ko seetaan am na loo koy tiital si ama barki alxuraanu karim nag laay wax man nangul naa ko jàmbaaram nangul naa ko ay qualité parce que Modou Lo boo nee du champion da ngay wax lu la neex champion la te jàmbaar la mhm. mais Ama moo ko gën doon jàmbaar koo xamante ne nii dafa doon bëri ci papa ak yaay mhm. ba pare du ko caaxaane mhm. kooku sant yàlla quoi wax dëgg fa yàlla mais gisuma ay qualité Modou Lo ci kaw Ama Baldé parce que li ma am dama ko xam waaw mu nekk suma doomu ndey presque booy xool 2005 ba léegi ñu ngi ànd te 2005 ak 2023 defe naa du caaxaan 18 ans kooku du ay caaxaan la demee nag comme Modou Lo Modou Lo ah. ak lu ci mënti at demee rek hmm. yàlla na Ama am ndam ci kaw Modou Lo indi ñu roi des arènes bi Pikine Ama aw rond point sama kër maam ma rëpp ci kaw étage étage euh, Pape Mbaye Gaye hmm. xool suñu doomu nday mu yore couronne roi des arènes bi ça me fait plaisir quoi loolu laay ñaan yàlla suñu borom yéen daal rek waaw ak lu ñu ko mënti amee tamit baax na mais yàlla na ko yàlla mataleel lépp ragaloo combat bi yàqu balaa boobu non gars yi nañu nañu xam nga tamit Iba ah man dara commencé bëri um, ay Iba dem ba Gambie dafa coogi moom Iba barki Serigne Babacar Sy laa lay waatal gis nga làmb nii hmm. saay bu yàqoo dëgg la amateur bi perdant la de hmm. mais tamit mbër yi gën a sonn parce que xaalis dugg na ba pare def nañ si ni ci def ba pare tamit bu dul dara nañ jëm yërëm promoteur bi gis nga ba mu tegee làmb ji ba léegi ay tolof tolof lay jàkkoonteel hmm. comprendre nga hmm. tamit bu dul dara entre nit ak moroomu nitam quoi tamit julit moroomu julitam tamit yu metti yi nii man yéenewuma ko promoteur bi en plus keneen bëgg na ko jàppale muy Baye Ndiaye pour affaire yi jeex benn yoon comme nañ leen ñaanal yàlla jàmm ak salaam rek ñu ko benn yoon quoi man loolaa gis looy tàggatoo waaw di ci woo waa Pikine Saada nan Saada Gueye Saada Gueye waaw bu Pikine bu Pikine waaw juddoo juddoo Demanik mhm. sunu kër ak Demanik booy xool ñoo jiitlante waaw waaw man booy xool ñu naan cent pour cent Pikine mhm. waaw man lépp sam Pikine laa war a laa jàngee waaw man Pikine laa jàngee waaw falaa juddoo falaa màggee Pikine laay liggéeyee mhm. waaw am befem moo ma yóbbu lycée des Parcelles Assainies LPA ba pare ba miinanteeg mbër yooyu noonu moo tax bu ñu dajeek ñoom damay kontaan quoi waaw ñun ak ñoom petit combat ba grand combat su ma dajeek ñoom rek laay te parce que ba nii may wax ak yow père mhm. dama fa am ay xarit yoo xam ne ñu ak ñoom ma bokkoon classe dañuy dund dër bi saa bu combat amee dama leen woo mooy ndam am ñuy defet am lépp dañuy wotante gante te booy xool lu si ëpp ñooy toog mm. parce que làmb defe naa day boole quoi mais warul tàggale ay affaire kontaan naa merci père rendez-vous le 5 novembre allahu rabbi looy wax waa Pikine waaw nañu waaj rek def une forte mobilisation te ñun xam nañ ci ah. tamit jéem a jàppale tamit gars yi ci ah. biir yi ah. waaw di ci woo suñu grand ñoom Pape Sarr ñu a fexe gars yi nuñ amee billet dem xam nga mobilisation bu doy parce que ama tamit bul fàtte fa mu jógee ay Gambie parce que ñoom cinq jours avant combat dañuy yegsi mm-hmm. am na ñuy jógee Guinée Kédougou mhm. xam nga Casamance ñëpp dañuy ñëw Guinée Bissau ah. ñëpp dañuy ñëw macha allah ah. di nuy sam père sam père Pape Diagne Seras ndeysaan ah. sama waay la sama xarit waa moom dafa may woo dinañ fi bëri di nga leen dalal ba mu naaj waaw waaw Modou Lo nañ ñëw dal si jaam tamit Modou Lo tamit li mu daan indi estar na ko indi incha allah ñoom dinañ bëreeg ñoom mm. ñu dalal leen mm-hmm. waaw ñu bëre ba pare ñoom ñu jël seen yoon ñu nekk ñu jël seen yoon parce que fair play lañ woote quoi mm-hmm. tamit supporteru Ama Baldé ay noble lañ gis nga ñun Ama buy bëre ñu war a tilim ñooy tilim mais ñu war warta tilim la ñu sol ba mu jekk yëg ci kaw def ba mu baax quoi ah, di sant yàlla wér non kooku kooku léegi léegi comme comme comme kooku ama yee fitis la hmm. te day yëngal arène nationale bi buñ ko yuuxoo heure bi du neex mais nañ bàyyi ba bis ba rek ba ama dongale rek après ñu yuuxul koko caw sa bii bi yoon bi yoon bi yoon lan ngeen di andi. waaw bii nii lan caxat ngeen di andi wax naa ko naa ko war wax naa ko bul de confiance la quoi. par exemple Lax Bal baa ngi nii Lax Kiri baa ngi nii. Uh-huh. defe naa booy jekki deux mille deux mille deux mille ba léegi. 9 uh-huh. novembre 2008 ba léegi. Uh-huh. nga di ko xare di ko xare ba 5 novembre deux mille deux mille vingt trois. war a doon de des arènes defe mooy loolu père. waaw parce que ama boo xoolee mbapat sax daan nañ ko ubbi mais lam ñuy génnal ci ah. surprise ah. insha allahu rabbi retour lay doon fii lam doon commencé di bàqu ah. xam naa nañ ko daggati bam jeexal billaay di nuy sama grand pégaay mi ngi waaj lu garaaw hmm. le cinq moo tax le cinq ñu naan day da du am hmm. ah ñooñu xamuñu de waaw gars yi ñoo ngi waaj de barki yonent bi le cinq insha allahu rabbi jërëjëf Père merci Sada Ngok Père